mbokk jullit yi lu ñu doon wax li mooy dinañ ko résumer rek mooy zikr moo nekk jaamu yàlla bu gën a màgg ginnaaw jàng alxuraan amul jaamu yàlla bu ñuy def bu gën a màgg zikru ndax suñu borom xam nañ ne kay julli mooy kant mooy carte d'identité jullit képp kuy julli am nga yiw mais suñu borom dafa ne inna salaata tanha anil fahshaai wal munkar wala zikrullahi akbar zikru na moo gën a màgg julli kon xam nañ ne zikr lu màgg la luy tegtal zikr lu bari doole la bëri na lu ko yàlla di wax ci Qur'an di wax fadkurullaha kasiran ni azkurukum fa ida qudiyati salaatu fadkurullaha qiyaman wa qu'uda di lii aaya yëpp ñëw na di wax di di di di di xiirtal nit ñi si zikr ñu bëri luñ koy zikr suñu borom wax na si beneen ay wadkurullaha bukratan wa asila ñu ne jàng dee leen tudd yàlla suba ak ngoon soo gisee yàlla lépp lu mu sàkk day tasbih fajar su jotee su naaj bi di dugg day tasbih lépp lu yàlla sàkk dina ko def bépp mala bu ko deful bés boobu du dund day dee bani aadama rek mooy yeewu su yeewoo mu ban bañ a yàlla wax lu ko neex yàlla bàyyi ko fii ba heure heure appam mais leneen lu dul bani aadama lu ko def yàlla day jël sa ruux lu tax yooyu di dikk di sàbbal yàlla ndax bëri na ku naaj bi fenqal fekk naaj bi du ko duggal bëri na koo xamee ne naaj bi sowal na ko fekk naaj bi du ko fenqal bëri na ñoo xamee ne suñ tëddee seen lal du ñu jóg yow nit ki bani aadama yàlla may la nga tëdd jóg fudd am say kat sa cër yëpp mot da nga war a zikru sant yàlla suñu yoon bii nag tariqa cheikhana ahmada tijaani tariqatu shukri la la yoonu sant yàlla la moo tax taalibe cheikh rek ngay gis ñuy def seen laasim suba heure bu naaj bi di génn ak seen wadifa ak seen laasim heure bu naaj bi di dugg ndax sant yàlla ci xéewal yu ñu leen wax yonent bi sallallahu alayhi wa nee na du ma leen wax ne jaamu yàlla bu gën a màgg bi nga xamee ne moo gën a sell si yàlla moo gën gaaw a yëkkati sa martaba moo gën nga jël say xaalis say million joxe ko moo gën nga jël sa alal sa kaj sa wurus joxe ko moo gën nga war sa fas dajeeg sa noon mu jot mu cor sa baat walla nga cor baatam mu ne duma leen wax lu gën loolu yëpp ñu ne ko aha kay wax ñu ko mu ne deel tudd yàlla lu bëri nga sax si kon moo tax bokk na ci charte tariqa Cheikhana Ahmada Tidiane soo jàppee nga sax si bañ a bàyyi ndax xayrul amali adwamuha jëf yëpp lu si gën mooy loo xamee ne dañ si sax kon ñun ñu ngi sant yàlla ñun taalibe Cheikhana Ahmada Tidiane yi nga xamee ne ñun jël nañu tariqa Tidiane ñeewuñu kenn ndax suñu suñu sëriñ Cheikhana Ahmada Tidiane moom moo wax ci jawahir al mu ne wax na ma yet sonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma gis ko bët ak bët mu ne ma yow de yow yaay xutbul maktuum mu wax ma ko fekk du nelaw de si yeewu ma ne ko lan mooy maktuum mu ne ki nga xamee ne martabaam dañ ko làq malaaka yi dañ ko làq yonent bi dañ ko làq yonent yi lu dul yonent bi sallallahu alayhi wa ak yàlla rek ñoo xam sa martaba moom Cheikhana Ahmada Tijaani moom mooy yokk waliyu yàlla yépp fii depuis bi aadama ba yowmal qiyaamati moom moo leen di yokk ndax jël na baaraamam yii mu dajale leen mu ne samay sama ruuxu ak ruuxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nii la ñu mel ruuxu yonent bi sallallahu alayhi sallam moom mooy yokk yonent yi ak eh, yonent mooy yokk yonent yi man sama ruux mooy yokk xutbu yi mooy yokk wali yi kañ la commencé avant aadama di am ba yowmal qiyaamati moom la kon ñun ñii aju si moom yàlla daf ñu nangu ak même situation bu ñu mën a nekk yàlla daf ñu bëgg a tànk bàyyiwuñu yoon bi tànk wóoluwuñu yàlla suñu wóoloo yàlla fu ñuy fu ñu ne ñun dootuñu yàqule loolu suñ ko amee rek makru adam adamu amri makrillaahi bañ a wóolu euh, euh, tentative yoo xamee ni yàlla mun na changer situation yëpp ndax dafa am nit ki mun nga dem ba si biir nga yàqule fekk yëguloo ko loolu nag ñun tànk ñu ngi si nii népp nu ñu mën a mel yàlla nangu ni ndax rima si rima cheikh omar radiallahu taala anhu mu ne cheikh mouhamadul ghali wax na ma am na benn si taalibe cheikh yi ku demoon si jumaa benn juma mu daje benn borom xam-xam kooku ne ko yéen taalibe cheikh yi da ngeen di dundal jàkk yi si seen yaram mais du ngeen ko dundal si seen xol te xol moo gën a màgg mu ne yéen da ngeen di dundal jàkk yi si cest a dire li ngeen di def figuration rek ngeen di def mais ñu ngi su ngeen ñëwee seen xol yi du fi nekk moom waa ji si mer mu tontu waa jooju mu ne ko na mahbubuuna maqbuluuna ala ayati haalatin kunna ñun de yàlla def ñuy nangu yàlla def ñu bugg si nu ñu mun a mel avec situation bu ñu mun a mel position bu ñu mun a mel yàlla def ñuy nangu kooku daf ko wax rek si mer mu tiit dellu si Cheikhana Ahmada Tidiane mu ne ko noonu man nag tey wax naa lu ëpp am na ku ma wax lii ma tontu ko lii mu ne ko Cheikhna Ahmada Tidiane ne ko ah kay li nga wax li dëgg la yéen yàlla def leen bugg def leen di nangul avec situa nu ngeen mun a mel yëpp yàlla def leen mu ne mënuloo si woon yokk ñun yàlla def ñuy nangul yàlla def ñuy kim malgré mu neex la mu naqadi la yëpp ñun yàlla def ñuy nangul kon kooku su ñu melee noonu ñu bokk si tariqa Cheikhna Ahmada Tidiane radiallahu taala anhu dañu war a sant yàlla moom Cheikhna Ahmada Tidiane wax na mu ne yonent bi bu mu ko feeñoo ne ko wàccal nga jëriñ xeet bi nga jëriñ mbindeef yi nga tere leen dugg safara mu ne yonent bi dinaa nangu si condition su dee nekk na bunt boo xamee ne dafay tax mu mucc képp koo xamee ne dafay mooy yàlla ba tiit si boppam xamatu amatul fu mu dellu jàq am jàqare jàpp ko fan lay dellu xamatu ko mu ne su ñëwee su ñëwee jàpp sama tariqa bi yàlla dugal ko ajjana yàlla xettali ko jàppale ko mu ne ko yonent bi ne ko aha kay nangu na de yow yow mii képp ku yaaju aju si yow képp ku jàpp sa tariqa bi di nga nekk buntu mucc ngir safara képp ku ko jàpp kooku nag Cheikh Tidiane doog a kontaan radiyallahu taala anhu mu bég kontaan si loolu ronent yonent bi Seexna Ahmada Tijaani bu mu feeñoo yonent bi yonent bi garantil na ko ñaar fanweer ak juróom-ñeenti mbir yoo xamee ne taalibe Cheikhana Ahmad Tidiane da koy am fukk ak ñeent yi sympathisants yi ñoo xamee ne jàppuñu wird mais seen xol Cheikh Tidiane mu ngi si ñooñu dinañu am fukk ak ñeent yi fukk ak juróom yi nag ñële dinañu am lële yokkaat si yeneen fukk ak juróom Cheikh Umar tànn na ko si biir jawahiral maani di ko compter di ko compter am na ñu ne soo demee si Fathur Rabbani moom dafa ne ñeent fukk la Cheikh Umar nee na ñaar fanweer ak juróom-ñeent la am na ñu ne fan fanweer ak ñett la mais fanweer ak juróom-ñeent yooyu Cheikh Umar wax génnee ko suñu sëriñ Alaaji Malik radiyallahu taala anhu def na ko ijmaal way na ko si téeréem bi ñuy wax faakihatul tullaab yooyu la ñu bugg a compter suñu temps bi mayee incha allahu dinañ jël point bu nekk ñu wax ko lu si mun a xej ñu génnee ko lu mënul xej tamit incha allah ba beneen ñu xam rek ñun tam yàlla am na lu ñu may. noonu mbokk yi ñu ngi wax si mbir yi nga xamee ne rasul Cheikhna Ahmad Tidiane garanti na ko taalibe cheikh taalibeem yi mooy ñi nga xamee ne ay sympathisants lañu wala ñu jàpp tariqa bi. alaji malik radiallahu taala anhu dafa ne képp koo xamee ne bugg nga cheikh di nga am ñaa di nga am fukk ak ñeenti mbir yoo xamee ne yonent bi moo ko garantir cheikhana ahmada tijaani 15 yu des yi mooy ñi nga xamee ne dañu jël kurus bi di ko wirde ñooñ ñoo ko am bu si jiitu mooy yonent bi garanti na leen ñoom taalibe cheikh yi yépp kenn du si génn kenn du si dee fekk deewuloo ak liimaan c'est-à-dire leen di garanti dinañ dund si seen ngëm-ngëm génn si seen ngëm-ngëm bëri na ñu commencé dara fekk du ñu mottali ak ngëm-ngëm bëri na ay di sa yuñ ci wax yu bëri lu gën a tiit lu mooy dee su ñëwee dafa metti yonent bi sallallahu alayhi wa sallam garanti na taalibe Cheikhana Ahmada Tijaani du ñu yëg mettitu dee su dee ñëwee da ngay tëdd nelaw rek doo jóg bëri na ci taalibe cheikh yi wala koo xamee dafa sujud ci dernier sujudam ñu jël foofu ruuxam mu ne ci biir xabri tiitaange ak métit bu fa nekk bi ñoom taalibe cheikh yi duñ ko gis ndax su yonent bi sallallahu alayhi wa moo leen ko garantir mu garantir leen ñoom taalibe cheikh yi wala sympathisant yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam garantir cheikh ñoom day duñu gis mettitu euh, euh, barzax coono yuñ fay daj mbugal yuñ fay daj ñoom duñ ko gis mu ne bésu penc ñoom suñu borom subhaanahu wa taala daf leen di faral ñoom ñëpp seeni bàkkaar du ñu am benn bàkkaar bésu penc ñoom loo xamee ne dinañu dañ ko doon topp ñeneen yonent bi sallallahu alayhi wa dafa ñëw mu ne leen xam ngeen kan moo gën a perte ñu ne ko déedéet xamuñu mu ne ki nga gën a pert moo ko xamee ne dafa jëf-jëf ju baax ju bëri mu def nag ñaawteef yu bëri mu tooñ ñi jël alalu ñii bésu penc su ñëwee kooku dañuy jël ay yiwam di ko feyee ñu mu tooñoon ba yiwam yi jeex ñu jël safaan yi teg ko si kawam su de yooyu demee ba mu diis ñu jël ko sànni ko ci safara kooku moo gën a metti le mais taalibe cheikh yi radiyallahu taala anhu yonent bi garantil na leen seen tooñ yi ñu tooñ ñeneen yi dañ koy jële si magasin yàlla mais kenn du ko jëlee si seeni ay yiw bokk na si liñ leen garanti kenn du leen laaj kenn du leen xisaab kenn du leen kenn du kenn du leen critiquer kenn du leen wax dara ñoom bésu pénc bokk na si lu leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam garantil mooy bésu pénc tar naaj bi nu muy méttee coono bu fa nekk bi taraay bi fa nekk bi ñoom duñ ko yëg ndax dañ leen di yàlla daf leen dugal si keppaaralu arsham ba ñu pare xisaab ñu doog leen wax wax lu ñu leen di wax yóbbu leen seen place bokk na si bésu pénc ku nekk dina traverse siraat ñoom suñuy traversé siraat ñu ngi koy traversé si ay mbaggu malayka si kaw mbaggu malaaka yooyu lañuy war ñu traversé ko am na ñu koy traversé ñeent fukki at mais ñoom si mbaggu malaaka yi dafa mel ni xef ak xippi rek ñu egg bokk na si su nit ñi jógee ba su pénc ku nekk da ngay mar mais ñoom suñu jógee direct dañuy dem ci kaw kawsara foofu la ñuy naanee yonent bi sallallahu alayhi wa moo leen di jox ñu naan ci ci ci kawsaram bokk na si ñoom taalibe cheikh yi kenn du leen xisaab kenn du leen laaj ndax yonent bi dafa ne man nuuqi sa uzziba képp ku ñu wuññu say mbir ñu gis si dara comme ñoom kenn du leen wuññi kenn du xool seen ñoom mbir bokk na si lu leen yonent bi garanti mooy ñoom eh, illi jannatul illiyiina la ñuy dem moo gën a kawe si ay jan aljanna yi bokk na si yonent bi lu mu leen garanti si fukk ak ñeent yi mooy ñoom képp koo xamee ne bugg nga Cheikhana Ahmada Tidiane yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf lay bugg képp koo xamee ne sympathisant nga bugg nga Cheikhana Ahmada Tidiane doo dee lu dul nga am martaba wilaaya même su dee benn minute di nga am boobu martaba lii mooy fukk ak ñeent yoo xamee ne euh, taalibe cheikh yi moo sympathisant yi ñoo xamee ne jàppuñu wird bi ñoo koy am ñoom ak taalibe cheikh yi mais fukk ak juróom yuy ñëw yi mooy. ñi nga xamee ne dañu jàpp wirde bi nekk si ba dee si am na yu bëri yoo xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam garanti ne leen ko muy 15 comme nag waxtu bi jot na e xëy na dañuy yem fii rek ba julli ba beneen yoon yàlla na ko yàlla yombal yàlla nañu yàlla def ay taalibe cheikh ñu lu ñu xam ne ay taalibe ku gën si wali yëpp si lañu ñu aju ñu bañ a am complexe ñu xam ne ay taalibe lañu ñu jàpp si jafandu si mais lu si gën a garaaw temps yii da ngay gis nit koo xamee ne dañu la abaloon dañ la jox tool na si béy nga jël tool bi def ko si sa possession ne yow yaa ko moom kenn moomul moomeel mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom moom Cheikhana Ahmad Tidiane moo wax man yaarifu nii fal yaarifu nii wahdi ku may xam nang ma xam man rek man maay sëriñ ku nanguwul nekk taalibe cheikh génn nga si yoon bi woote yi bëri na mais nañu nangu nekk taalibe cheikh ñu nekk benn ñun taalibe cheikh yi ñu xam ne benn la naanukaay bi benn la sëriñ bi benn la ku nekk nag di xëcc boor koo xamee ne jëlul si man yëpp bokkul kooku da wàññi cheikh na ahmada tijaani soo waxee képp koo xamee ne ku jëlul si diw kooku de du taalibe du egg Cheikhna Ahmada Tidiane nee na am na chaque zaman dinaa am juróomi téeméeri nit yoo xamee ne am nañu martabal xutbaaniya si biir tariqa bi kon nag képp koo si jàpp rek daf lay yóbbu fépp foo si téye daf lay yóbbu li ñuy woote lii yépp bëri na lu si amul mais wax ju bëri nañu nangu nekk taalibe Cheikhana Ahmad Tijaani ñu nekk benn qul li ashaabika laa yu'di ba'duhum ba'da fa inna idaayatu ba'duhum yu'zini neel say taalibe bu ñu lorante seen biir képp koo xamee ne lor nga taalibe Cheikhana Ahmad Tijaani comme yow da ngay lor yonent bi ku yor yonent bi yàlla dóor la kon nag ñun taalibe Cheikhana Ahmad Tijaani am nañu martaba bu rëy suñu borom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax cheikhana ahmad tijaani ashaabuka ashaabi wa fuqaraauka fuqaraai wa talaamizuka talaamisi ñun ñu nekk ay taalibe cheikhana ahmad ñu am martaba nekk sahabi kooku ñun rek ñoo ko am kon nag bu ñu complex ñu xam ne am na lu ñu jàpp lu rëy te ñu jëm di ko wax suñu doom yi ñuy waxtaanal suñu doom yi ñàkk wax bi moo tax xale yëpp këf nañ leen ay ñoo xamee ne xamuñu dara munuñu bind même alif jàpp ay xale di leen yóbbu ñàkk wax la soo loo yor sooy dem danga nga siy yóbbu sa doom nga xam ne ko lii laa jàpp lii laa xam ku ñëw si géewu wazifa ku ñëw si géewu xadara di nga xam ne yàlla moo fi nekk ndax waxuñu fi dara laa ilaha illa allah wax te laa ilaha illa allah hisni man qaala laa ilaha illa allah daxala hisni wa man daxala hisni amina azabi laa ilaha illa allah mooy sama kër képp koo xamee ne wax nga laa ilaha illa allah dugg nga sama kër képp ko dugg sama kër wóolu nga samay mbugal tijari laa la allah tijari laa la allah tijari laa la allah tijari laa la hollum wona qur'an haala toon de laakara wona qur'an haala toon alif lam mim zalika alkitab هالتاق القرآن هالتاق الآخرة والشمس وضحاها والليل هالتاق القرآن والنجم إذا هوى هالتاق القرآن هالتاق الجنة هالتاق الجنة تنكزيكم تحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تنكزيكم تحيتهم فيها سبي كالتا تو الجنة جتو أدي يدي مسيد ما daf subhanaka allahuma mbiyata so wi subhanaka allahuma jiɗɗa arde e yeeso ma gona e haaldude makko sa heyɗi eh, eh, eh, no wiyete dawahum fiha subhanaka subhanaka allahumma so jiɗɗa ñamde ko ara ñaama so wi ko jiɗɗa woni ɗon isan ko zicre adoto e neɗɗo ko zicre wattinto e neɗɗo ha ilal abad ɗum noon so allah wuurti e zicru allah haalni en ko zicrete jikreten ko inde allah yuleten ko annabi sallllahu alayhi wa sallam ɗaɓɓaten ko yaafuya yaafuya ala mo ɗaɓɓerten ɗum so wona allah enen daiman ken bakkudinoɓe daiman eɗen poti wondude e zicru meɗen aɗa aɗa aɗa dari aɗa haalda e woɗɓe sa deƴƴi sa natti haaldude maɓɓe duttuɗa e subhanallahi duttuɗa e astahfirullah aɗa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ɗum fof ko zicru noon ndumoɗen ko ɗum allah yiɗani en suɓani en ɗiɗo konnguɗi totti ɗum annabi sallllahu alayhi sallam totti ɗum seyidna cheikh tidiane totti ɗum sahibul hadra cheikh oumar ko cheikh oumar sakti ko ala caktuɗo ko foti noon ko cheikh oumar sakti ko ala caktuɗo ko foti noon onon sahibul hadrate oɗon poti yettude allah jetton annabi jetton seydina cheikh tidiane eɗen poti yettude cheikh umarul fouti allah waɗi en julɓe jeeɗen ummatu muhammadin sallllahu alayhi wa sallam allah waɗi en almuɓe e seydina cheikh tidiane allah waɗi en jiiduɓe e cheikh umarul fouti e leydi jiiduɓe e cheikh umar fouti e ɓanndu jiiduɓe e cheikh umar fouti e ɗemngal jiiduɓe e cheikh umar fouti to allah eɗen poti yettude allah no feewi eɗen poti rokkude koye men ko ɗaɓɓi e meɗen ko ko ɗaɓɓi men ko yen ngar rokka en juuɗe annabi sallllahu alayhi wa sallam sona emen caliɗo hoto allah waɗe men saliɓe ko ɗum cheikh oumar el fouti yiɗe sahibul hadara mo mbaɗɗen hannde o en mbaɗinoma ko adi hannde gila o gila o waɗi hadara omo waɗe kono hakkillaji ne mbawi wasde yiitude ɗum mo wuuri men mbaɗmo mo wuurti men mbaɗmo yo allah waɗ ɗum ha ilal abad oɗo hadara mo o wanno diŋirayi hono makko gila lawol ngol taga holo makko waɗaka ene wawi waɗoye ɓayri gurdam ɗam mi yaha taw kono waɗaka taw ko waɗaka ha joni noon mi anda sona waɗoye hadara o ne ko hadara heblade eɗen naata jihadul asgar hay goto waɗani ɗum ko hadara ko cheikh tidiane ari ele aduna ko wono on hadara mbaɗaɗo eɗen keblo naatude jihaadi ala eɗen mbaɗi hadara eɗen ndewa allah gasi e jihaadi eɗen mbaɗe eɗen mbaɗe e ila u kalimatullahi subhanahu wa taala heɓeɗo heefereɓe wiɗɓe yen goppu wiide la ilaha illallah ko ha ay en jaɓani ko hen ko hen keddortoɗen ha mayiɗen ɓe mbiyeɓe mbara en mbardiren mabɓe somi mbaɗi en cahotiren sen mbaɗima naati en aljan no foti o heblanade ɗum mbimi oɗo hadara keblaniɗo ɗum o on hadara ala baɗɗo ɗum taw ene wawi noon waɗoye kono gila hay cheikh fuɗɗi ha joni ala baɗɗo on hadara somi wi wonde o hadara baɗaɗo ala baɗɗo ɗum hoto ɓe mbi wonde la ilaha illallah ne waɗe jamma ñalo hoto ɓe million ngaji ne ndenta hadara goto ala madmuna hadara o wona gotum oɗo hadara eɗen jooɗo ɗum sen gasni gande pelliton onon tijjaniyankoɓe onon rewɓe am onon wonduɓe am saabu allah ene laaɗo muɗum ken jihadul acbar asgar gandon jihad acbar noon ko yeeyde fittade mum mbara walla mbariɗa allah wona ɗon ko ɗum cheikh oumar fouti o waɗi kewendi ndi o aha hono nden fimde waɗaka taw ɗum noon so allah waɗi en jeeyama e on hadara jetten allah nangtoɗen hen parnoɗen parnoroɗen l'islam men parnoroɗen ɗariqa men julɗo fof eɗen jiiɗi ɗum hay mo wona julɗo en gañani ɗum kono julɗo o eɗen jiɗi ɗum fodde muɗum tijaniyankoɓe eɗen jiɗi ɗumen fodde mumen gonen gotum guuren gurne gurne gurdam moƴƴam gure gure gurdena ɓe gona tijaniyankoɓe soɓe jaaɓi nguuren nguurde hayɓe gona julɓe so jaɓi so jaɓani keddoɗen ken julɓe keddoɗen ken tijani yenkoɓe yo en guura hen yo en ma hen wassalamu aleykum wa rahmatullah taala wabarakatu